kenn ci ñun du tàbbi ci daa'iratul iman hatta yuhibba li axiihi lu dul mu bëggal mbokkam laa yuhibbu li nafsihi li nga xam ne moom la bëggal boppam comme ni ko Ceerno Tine waxee léegi nee na bi muy daaneel ci kàddu yi mu ne kenn ku ne ci ñun mbooloo mi na nga jox ki nga dendal loxo ne xam nga loolu muy tekki nee loxo ak loxo li ñuy tàbbante nee na lii loxo lu set la ni mu seté na xol bi mel non ko jox loxo rek nga yene ko jàmm don ne moom yéenewu la jamu. yow jàmm rek ngay am jàmm rek ngay am kon nak cher na ngi ñaan yalla na yalla defal ñu jàmm mu may ñu ñu daje na gën i déwén fekk ñu ngi yokku dara wàññeekul ci ñun yal na yàlla def suñu jëf yi mu nekk jëf yu ñu nangu yu ñu nangu fa yàlla subhaanahu wa ta'ala yàlla tàbbil ci barke mu def ci suñuy njaboot barke mu def suñuy njabooti njabooti barke ba ila yawmil qiyaamati